Sénégal nag li may wax nii Sénégal xam nga mag ñi nga xam ne nekk nañu nii dem na loolay sax ndaxte nag dafa naa ni jour bi ñuy dugg ci kaaw nga ne soppi si ñoom Mouhamed Baye ñoom ñëw si ñoom ñëw si boobu am na lu ma la wax am na lu wax ñu ne li may fii de bu leer na li samay soxna am jàpp. am na solo kon na ma ko ca Kaaba Gueye.

moo ma jaaxal. ba tey waxaguñu ko wax leen. waxal leen ñu ko. dégg ñu dégg non dégg ñu ñoo xam ne wax ñaareel bi wax. gërëm leen wax leen ak seen i xarit. ngërëm mënta weesu. gërëm nañ ko de. kii ñaari góor laa ko def. ngërëm jigéen ñi ñaari góor laa ko def. waxal waxal man yaa tax code ba gën a ñëw daal di ndax ñeneen nit gërëm nañ la. gërëm nga leen. oustaz yàgg la. oustaz. gërëm nga leen. sama papa dafa daan ñëw. waaw xanaa bàjjee na nga nii toog. ndeysaan waaw mooy sama papa mooy bàyyi. moom mii di sama papa. du toog ñaari fan yu ma woowu. waaw waaw. du toog ñaari fan yu ma woowu. kon daal sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. waaye lépp lépp lépp ñëw jox la am solo la dama taxaw ne sa maam sama sangari bon yi moo ko moom saa bu ñu santee ab alxuraan dama lay wax ana soxna si baam nga am jàmm kenn ko yeew de saa yi bu ñu santee ma ne loolu la wax kon yow sa nijaay laa soo ko bu jigéen rek bëgg ma fonk ma rek xam maay kan yow tamit nga xale bu am jom ndax fii ñu fi ñëw ñëpp alal indiwu leen fi lekk ak naan indiwu leen fi te lii rek yombul nit yomb na ay milliards wala mu am ay millions te amul lu mel nii barke Sëriñ Babacar sama gëm man maa ngi sant di sa yaay ji xam ne maa ngi sant te yoo xam ne maa ngi sant waaye tey ku ma ñëw rek sa fulla ak sa fayda ak sa doon moo ko may boo nekkoon tey sa dëkk bi naan sàngara ak du tox yàmba ak du sàcc. kon boo tàtte tàtte bu mel nii nit ñu envoyé bi duñ fi ñëw moo tax fula fayda ak jom lu ko jaay lu ko waay jëndee jar na ko soxna si barke sëñ Baba kese ma gëm heure bi tey nga kon tey may tëgg sabar danay tus juróom-ñaari jarañ yi mënul tus la tabato waaye rek sëñ Baba kese gën na ma ko bëggatuma léegi sabar ko def kon boo amee jom xamal ni sa papa yàlla am na rek li mu bàyyi ñu koy sise am na mu bàyyi fii dafa gaara ba gaara oto bi xam ne sax gën nga ko taxaw mu nga asale gaare cinquante millions lay jox kon bu la yàlla bëree sama doom bi ñu jóg jóg wax naa ko kon bu mu la am nga jëkkër ju baax waaye sa jëkkër ci na am na jabar ju baax maa ko ko wax ndax nit wax dana ko waxat sa sa jëkkër ji ma may boppam waaye yow may sa bopp ndax maa la yor man nii naa si bopp maa la yor kon sama bàyyi sama soxla yëpp ngir yàlla ak bis bi sa jokkoo tax ni ñuy wax a tëddëgg na ñu yéen a jàmm nga xam ne àll àdduna bi fii la yem kenn du ko yóbbaale ñoogu boo jëlee doom gi tëdd ko al amin tuutuwul de ala taxul xam nga lu tax la ngeen seq mi yëg-yëg te lu waay wax dana ko waxaat jamono bu mu toll rek ku amul jom amoo fulla amoo fayda dafa gàcce waaye man yaay sama doom njóobu fekk lu sa ay sa ay bu ab bi déedéet déedéet lu sa ay bu ab bi déedéet njóobu mi su toxal ba fekk la sa ay boot. kon damay ñaan yàlla sa sëy bi ndax sànq da nga toog dafa rafet ay nit bu la yàlla boole dëkk day rafet. waaw waaw kontaan naa sama doom bi sama doom sama doom bi waaw Lamine. Lamine xam ma la woon. waaw maa ngi ah xam ma la woon. sekk sekk sekk sekk. Seck Seck. Seck te ni ngeen salaam maaleykum Njoogu Mbay xew la tey yaayam bu jur ne leen doom ju baaxee nday jaa tax muy yaay ju baax nu ko waxtaan yaay ñu ma yaay ñu ma sa doom ji ni nga def ci suba si nii lan nga diggee sa bisi jërëjëf Pape bis bi dañ fee ñëw Njoogoy tudd doomam te defuñu dara dañuy tudd rek parce que. su fekkoon jii dañuy ngénte dina fi ëpp lii ndax man sama mbokk yëpp ku nekk ngir riir di ma laaj ni ma lu tax waxuma leen ko waaye bànneex ak naqara mun ta ànd rakkam ji topp ci moom borom këram dafay bàyyi ko muy muuru yàggul dara dara dara moo tax ñu yemale ko nii waaye nag mënoon na fee ëpp di sant yàlla nag di julli ci Seydina Muhammad di ñaanal ñi tëdd ñëpp yal leen yàlla xare àjjana ñun ñi fi des yal nañ fi yàlla bàyyi ba ca kanam kanama kanam njóogu nag ba ma laajee ci moom dinaa sawar ci tontu ci moom ndax doom la joo xam ne nii wéetalu ma yàlla bu ko yàlla wéetal te yow li may wax xam nga ci dara ndax man sama kër daanaka ñetti booli laay teg ñu koy lekk te loolu cin bu neexee ko feccum liir bu neexee nday jaate yi ca mbag ma ma nekk ak sama taaw xiifalu ma maralu ma rafetalu ma di jox jabaram muy togg ba mu doy moom ak rak jabara rakam yi ci kër ga waaye ak njoogu ñoom ñëpp ñooy ay ay lu tubar fakàll di ma jox ñuy togg lu neex lu bari lool may lekk ba suur di sol ci yére yu baax yi te ñoom ñooñu la waaye moom bàyyiwu ma ndax dëkkul ak man moom ñaari jabaram dëkku ñoo man waaye bu jógee seet mu ngay xool ca kër ga lu fa manqué mu koy su ñu toogee xaaju guddi jabar rakkam yi woo ko jabar rakkam yi woo ko gëj na loolu lekk yàpp ca tabaski ga loolu lépp ci tiitooro la bokk mu daal di commandé pako daal ne laay na ko jëli boole ca boisson bu baree bari kon jooju doom duma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yokk yal na yàlla wéral ay cëram yàlla na sut baayam ba aw fanta de sa barke ba parce que jabaram yi tamit ñoo jàppale ko di togg di indi ca kër ga di ma jëndal yére di ma toppatoo xam ne dëkku ñoo man te mënoon li ñuy togg mënoon na ma am poto ko ne duma leen dara waaw di ma indil di ma toppatoo su njoogu ayee ci ñoom duma leen gis su njoogu fegalee ci sama kër ga la ñuy aye ñoo jàmmal sama waa kër di kaf ñoom di reeg ñoom defe nañ loolu baax rek maa ko war a am kon nag kon nag yal na yàlla yokk sutura képp ku fi ñëw dikkee fi bisimilahi rahmaani rahim yàlla nga ñibbi ci alhamdulilahi rabil alamina yàlla bàyyi kook mbooloo mi tam ndax nag ku nekk lu nekk mën nga koo luyee waaye nit kenn mënu koo luyee mën ngaa luyee chaise mën ngaa luyee bâche waaye ay nit kenn mënu koo luye man nag maa ngi sant di gërëm di leen ñaanal yàlla yéen tamit tànk yi ngeen fi dikkee yàlla na ngeen delluwaat ci alxam diggante Ndiogou ak Wally Seck yow loo ci gis xanaa lu rafet rek nag Maria Sine may sa bigee sama doom jooju farama reen boobu nga xam ni dem boo Ndiaye daf maa bett ak surprise ndekete le premier mooy sama anniversaire man xaw ma ca dara sax mu daal dama koy souhaité ndeysaan ba pare xale yi def ko estati ku nekk di kii mu baax lool chaque année xar mu mag a mag a mag a mag mag la may jox tabaski wéetali sama doom bëgg ko te yàlla rek tax ndax bu doon alal la du ko way ndax njóogu amul lu mu ko jox waaye moom moo bëgg njóogu ba soxna ay dara bëggaale ko fii lu fi nit lekk tey soxna ay daraa ko indi kon nag Marie Yacine may sa biiga maa ngi koy ñaana yàlla na fanam yu gudd Wally Seck yàlla na wér yal na yàlla oyofal ay cëram yal na yàlla yokk suturaam ndax moom moo bëgg njóogu rek te yàlla sax waaw. tur gu mu jox Aziz Ndiaye loo gisee kii mooy yaay njóogu. waaw xam nga Aziz Ndiaye euh, dafa delloo mbattu ca la woon ndax Aziz Ndiaye njóogu mii nijaayam Aale Ndiaye mi jur Aziz lañ ko tuddee turandoo papay Aziz Ndiaye mu ngi ci sama biir kër di sama rak ah waaw. Joor Faal ko jur Aale Mbaye waaw may ñaanal yàlla nag Aziz Ndiaye na mu ñaanale woon keroog Aale Mbaye yàlla na dund ba du koy ñaanale Aale Mbaye ak Aziz Ndiaye mi jabar ndax ñoom dañoo ñëw fekk yaayam sopp ma bi may nàmpal njoogu la ma yaayam sopp bëggoon ma ñoom seen àndu du hasard mu jël njóogu yóbbu na ko ñaari yoonu màkk ak leneen ak leneen ak leneen am na loo xam ne boo ko ci doomu jàmbur lu ko dal yàqute ma koy ñaanal yàlla gudd gi fan ak wér ndax Aziz magi njóogu la waaye du xaritam baay mooy xaritu njóogu mu bëgg njóogu nag yemale koog baay di diisoog moom di ko delloo si di ko wétali amal ko njariñ lool kon nag turandoom bii du chance am la kontaan nañ ci yow yaay njoogu yal na yàlla gudd fi ñëw daal yal la yàlla delloo ndax fii jàmm rek fi am yal nañ yàlla defal jàmm yokku sutura yokku wér yi lotis lotis Mbacke Mbacke Balaye sa salaamaaleykum maaleykum salaam ngaa ñëwoon si tudd bi nga def ba mu baax kon bis bi tey lan la <laughs> alors bis bi moom dañuy def lu dul euh, mën war ci teew parce que bu ñu nee Fatima ni Ndiogou te sama digganteeg ñoom nekkatul euh, xaritoo wala àndandoo mun naa nekk famille lañ parce que lu yàgg lu nekk dëgg la moo tax lu ñu xewle rek que mu neex que mu yi dañuy teew loolu moo waral suñu teewaay. mais Latif kontaan nañ ci yow yal na la yàlla ma jàmm mais li nga teewee nii solution de Ndiogou moom sa sa xarit la sa xarit démb la sa lépp la. moo waral bis bi tey kon lan nga ko dikkee ak lim la dikkee. ah sant rek sant kontaan nañ bu baax parce que bés bi lañ doon ñaan Ndiogo Fatima yàgg nañ yàgg boo xamante ne il fallait que ñu am bés bi du coup kontaan nañ daal macha allah. Ndeye Mbacke ngi euh, jigéen day jong ma yàlla la yàlla may jàmm kontaan ci yéen. salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal buzz kon nag xam na ne kii mooy taaw corsak da taaw mooy papa taaw mooy lépp lamin ma gis la tey bisu euh, xew Ndiogo mbay bi tey lan moo fi sa tànk ak lan moo fi sa bis si mbay Ndiogo bi. waaw bon avant tout maa ngi leen nuyu yéen ñëpp bon ngeen xamal ni bon Ndiogou moom sama doomu ndey la sama lépp la sama xarit la bon moo tax bu moo tax bu xewlee duma mën a def lu dul rek teew waaw bon teewul fi tam Wally Seck Wally Seck nekku fi mais bon maa ko fi nekkal loolu la. waaw. waaw ah, di ko rafetlu rek bon di leen ñaanal bon xam yàlla bàyyi leen yàlla gën yàlla gën a dëgëral seen ànd parce fekk leen ñuy ànd kon kon doo mën rek loolu leen yàlla dëgëral seen ànd waaw. waaw bon rakku ci yaru la bon rakku ci jox ay magam cër bon moo tax ak nii rek lañ mën a. boo ñun tam ñi rek lañ mën a mel moom waaw. di ko rafetlu rek waaw ah, sax rafetlu naa ko trop parce que def na lu mu war a def kon léegi rafetlu rek moo ko war waaw ah. <laughs> ah d'accord. Lamso yàlla la yàlla may jàmm. amiin naar. dëkk ko baax. tey ni gën ko su bisu Ndiogu Mbaye bi Soro loo loo jox ci jéem naa su bisu Ndiogu bi Sénégal buzz. Sénégal buzz maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu Ndiogou Mbaye borom xew bi di kontaan tamit ci turandoo bi mu tuddee sama mag Aziz Ndiaye am ci mbégte am ci kontaante Ndiogou Mbaye suñu frère ñu ngi bu baax a baax a baax waaw. waa léegi euh, Ndiogou def lu rafet jël tur bi tuppee ko Aziz Ndiaye Aziz Ala Ndiaye taalibe Serigne Babacar boobu ku nekk xam ne lu baax lu muy def biir Sénégal ba partout daal le monde nga bokk ak moom ndeeg bàyyi ñëw si bés bi toogal ko fi nekkal ko fi. kon soro kon turandoo bi am na loo ci sentir neex na la ba nga toog fi ba heure bi ah non damaa ñëw rek mais mun ma ko fi nekkal ndax moom ñëwoon na fi ndax moom muy fi comprendre nga Ndiogou Mbaye daal ñu ngi koy euh, sant di ko gërëm di ko wax ni kontaan nañ bu baax vraiment kontaan nañ mbokk yëpp kontaan nañ képp kuy aale aale rek kontaan nga moom macha allah. waaw Sooro kontaan nañu Sénégal Buzz yal na la yàlla may jàmm. waaw yal yàlla may jàmm yéen tamit. yaa Sénégal Buzz. bu baax yaay Buzz di. waaw kontaan noonu. asalaamaaleykum salaamaaleykum kii mooy Laay Goote bokk ak Njóogu Mbay nday ak baay. magam du tudd tey tudd bu rëy laay loo wax sa bisu mag bi. waaw bis bi moom sant yàlla. sant yàlla bu baax a baax. bis bi nii rek la mën a demee papa. ndax borom bis bi moo ko waral. Njóogu kenn du moom kenn du moom si ay magam ay rakkam ay jabaram ay jabaru frère am ak yooyu yëpp kenn du si moom moo tax bu wootee rek. il faut mu demee nii bu wootee rek nii la mën a demee moo tax daal sant yàlla sant yàlla sant yàlla bis bi ni mu demee nii yëpp sant yàlla bu wér a wér a wér a wér a si kanam rawul yu bët waaw instant yi tudd bi rek a jàll mais ba si kanam. tur gu mu jox Aziz loo ci wax. waaw c'est que loolu beneen mbir la. Ndiogoog Aziz dañoo yàgg ñoom ñaar dañoo yàgg ni ñu yàggee sax man mënu nekk fii di koy expliquer mais daal xam naa ni tur bi ki mu ko jox mérité na tur bi. moo tax mu jox ko ah, kon laay goote kontaan nañ ci yow nga bokkoon njóogu ndek baay mu sa mag kon waaw diggante waale njóogu loo ci mën a wax. li ma si mën a wax daal mooy ñu yàlla boole lañ ndax dama mës a dégg benn waay muy expliquer muy expliquer naan way bu neexee déglul ki ko way ak kim ko way mais ñëpp xam nañ ni way bu mu mës way njóogu mbay rek noo kenn du ko nattaam lay wayam ñu mu koy way yëpp dafa neex moo tax lépp lu mu koy defal rek si xol la koy tibbee moo tax si xol rek lay dellu ñoom ñaar daal lenn laa leen di ñaanal mooy yàlla lafal leen cat yàlla na leen yàlla lafal cat waaw ñoom ñaar lépp lañ bokk. kon laay gooto kontaan nañ ci yow di la ziar di la gërëm di la bëgge di la wax bis bi yàlla si yàlla def jàmm looy tàgg loo nuyoo. waaw may tàggatoo di leen di sant yéen waa Sénégal Buzz 221 émission yi ngeen di def am na solo gaa yëpp kontaan nañ si waaw télé capitaine yaa comme ni nga ko waxee mais kontaan nañ si yow bu baax a baax di kontaan si gaa yëpp jaajëf am leen jàmm. taxaar dama ne moom bu boppam di métti ci diggante ñaari soxnaam Awa ak Fatima lu koy faj du aspirine ak dugg ci pharmacie ba de jàmm rek jàmm kese moo tax ne Pape Hann suñuy ndey dañoo toggee xorom ak ya sàkku ceeb 100 kilos diwlin sans cholestérol waaw ñun ñoo toggee malaise ñun suñuy bàyyi dégguñu woon 100000. waaye ñun dégg nañ million dégg milliard parce que li wun xam lu ko indi ñenn ñi dañoo fonk looy jur te njoobu lii nga am ginnaaw yàlla gis di kenn mayu la ko man moo la ko may seen ñaari soxla buñ juboo nii toog nii ci jeune ci jeunesse ak nii mu demee nii njoobu sa am fulla ak sa fayda ak sa personnel ak sa ñaanu wujur moo la ko may njoobu waxuma ngir dara mais li ko indiwaat xam nga mooy lan nag ëmri bajaan bi fi jug suuf kan di sama rak lool ma fekk lu bari yow kër monsieur Pathé fa Waly Seck cosaan moom tubarkalla ci Pikine waaye nag Ndiobu ma fekkente jox Gambie xam nga nag dangaa téye sama loxo boole maag Waly waaye sa loolu la boo nekk bàyyi na la xam suñu diggante du alal di ñuy jox waaye nag jàmm ji ak salaam sutura man du ma jàppee nit alal Ndiobu alal du yóbbu kenn ci biir bàmmalam di jàpp ci barankaalu kenn mi am nga fulla am nga fayda am nga jom te it di ñaanal nag si soxna yi nga xam te ne ak nit ñi ñëw ñii jëpp macha allah Aziz Aara Ndiaye mi ngi tuddee tey jii nag ah waa askanu Ndiaye am nañu ndam Ndiob yàlla yàlla mi ngi tuddee doom yàlla yàlla dogal mu egg nag jàmm ba mu dem di ko ñaanal soxla. dañoo nekk ci biir waxtaan bi. sëñ bi am na si taxi. mos ko mbokk la. xam naa ne du jóg. bëri na lu téye moom. moom bëri na lu ma téye ci sama àdduna. bëri na lu ma téye ci àdduna parce que bu ma ko waxee moom wax na ko. mais saa mu tàng ma daw ba biir kër gi ci lu nekk billaay wala may ak sa wala mu tiim ma di wer di wer di wer di wer di wer ba ma yeewu fekk mu wer weer ba ñàkk mun na Aziz xam nga loolu xam nga élément xam naa masa xam bi may tax sama benn ne ko lu ne yëngu na nag moom mu wàcc